Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf njital Benno Jubal xëy diko ben ko benn ci l'Observateur honorable député Cheikh Bamba djey do nit sa borom fsdb bj moom i xët mu njëkk l'Observateur yëral xët mu njëkk journal bi Cheikh Bamba djey nee na Macky Sall dafa wor askanu Sénégal mu ne it sa hotel ku woteel Macky Sall xamal ne def nga dansé li tax ba du doon candidat ci wote présidentielle yu 2019 yi moom Cheikh Bamba djey mi ngi koy expliqué journaliste l'Observateur yi lu jëm ci mbiri Khalifa Ababacar Sall mu ne ëpp na sax jëme kaw nit ñi di dégg ndax gàcc gàcce la ci république te lu ñaaw la ci réew muy bàkkoo démocratie moom i le mbir it di mbirum Sall moom la professeur Ndiak Fall xëyee ci Vox Populi ubbil yéenekaay bi professeur Ndiak Fall nee na fi mbir yu tollu tembe Khalifa Ababacar Sall kenn mënu koo teree doon candidat ci présidentielle yi 2019 yi te it bu ñu ko faloon tey président de la république kenn mënu koo téye ci kaso bi professeur bi ne li fekk pexem recours mi ngi am du ñu mën a wax waxi condamnation définitive te li fekk condamnation définitive amul Khalifa Ababacar Sall am na sañ-sañu fal am na sañ-sañu falo loolu keneen ki ci des te ay mbiram gàll góose lool di Karim Wade waa Vox Populi ne professeur Ndiak Fall loo ci xam mu ne leen loolee moom dafa xaw a doy waar ndax bu doon rek li ku répression enrichissement illicite wax ci mbiri Karim Wade kon Karim dana mën a woote dana mën a doon candidat waaye disposition yu code électoral bi moo indi ay cóol cóol ci candidature Karim Wade kilifa geneen gu xëy di wax ci mbiri Khalifa Sall Karim Wade mooy professeur Abdoulaye ba noppi wane woon ak waa LD gi taxaw ñoom ne président Macky Sall la ñuy jàppale ba ñëpp xam ko keneen ku taxaw ci jàppale président Macky Sall ba ñu xam ko libération nee nañu mooy Ahmed Youssouf Benjaloun journal bi nañu keroog dimanche la doon wane boppam ci Scat Urbam ba mu fay lancé mouvement bii di Macky Again ci teewaayu kàngam yu ci mel ne ministre Diène Farba Sarr Ismaïla Madior ministre de la justice ak Cheikh Tidiane Ba directeur général impôts domaine moom Saloum Saloum bi doomi saam gi di Ahmed Youssouf Benjaloun leeral na fa li waral ba ñeenti at ginnaaw Kaolack nouvelle vision mu taxawal mouvement Macky Again Viviane ak li tax mu bàyyi fi Kaolack ga mu fekk baax doon defee xewi Ndakaaru Pikine amoon na xew-xew La bi nañu démb la woon responsable APR bii di Abdoulaye Sow moo fa doon taxaw ak jàppale mareyeur yi Sayer Kandji bu mouvement MPT wax ci La bi ne financement bu 100 millions doon wuti dem seeti Abdoulaye Sow mu jox ñu financement bu 300 moom mi def loole di Abdoulaye Sow ne ci journal bi yéenee moo di jàppale mareyeur yi ba ñu mën a àndandoo booloo falaat président Macky Sall ci premier tour bu présidentielle yi 2019 yi Bougane falu la bëgg La Tribune nañu borom gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany maa cay dox di ca wax demoon na ci seeti Khalifa Ababacar Sall déposé na it ca conseil constitutionnel dépôt dossier candidature yi Le Quotidien mi ngi xëy di ñu xamal ne tey jii ci minuit ca la koy dakkal ñaar fukki candidat ak lu teg ñoo yëgloogum ca ca la ñuy mii na akuk jaxasoo enquête dina kay nee nañu mooy contrat d'affermage bi jëm ci séddalem ndox mi ci Sénégal contrat SDE bi juróomi fan moo des ci mu jeex autorité de régulation des marchés publics mi jëloon décision suspendre contrat bi ñu joxoon waa Suez ngir ñuy séddale ndox mi yéen a kaay bi nee nañu ARMP googee kenn déggatu leen ci mbir mi mbir meneen mu journal yi moo di feetuk Noël gi soleil national nañu keroog ca messe de minuit ba woon ca cathédralum woon ñaan na ngir jàmm sax ci réew mi vox populi nañu sàkku na ci nit ñi ñu bàyyi di dem ci seet jàngalekat yi wax na it ci buxaaba yi nga xam ne jombalewuñu seen bopp dara léegi ko mel ne ku naan ñu loolee kay maa leen koy dëggalal ndax ca Touba am na benn buxaaba bu ñu fa jàpp dañu koo teg loxo te laata ñu koy jàpp ëmbal na ca dëkk ba juróom-ñeenti jigéen